bàyyi leen ba si biir bu bàyyee soxna am na waaw léegi soxna ñaari doomu jigéen waaw ak ak ku góor gi ak ak maam ah maam ak mbokk mu góor ah maam ak mbokk mu góor ñu ma ma dama ne la mbokk mu góor mu jigéen léegi kon zone bi ak ñaari doomu jigéen ñi ak ak maam waaw ak mbokk mu góor kon ki gaañu mooy kan waaw waaw kay lan la wutee lan la wutee fan la mu waaw donc boo bokk nga ne ban kaa gën suuf bee gën bon sedd leen léegi ñu nga waay waay waay ñu daan ndax ñu daan am yooyu maanaam bu ànd mooy kaa bi la gën suuf gën waaw nga ne ñaar fi nekk léegi soxna fi nekk soxna léegi soxna lu tuddee lu tax ndax ñaari doom ñaari doom su ma su ma ci mën a génne ak kan ak ñaari doom ñaari doom jigéen du ñu war a mën a doon suñu saay suñu si ñu mën a génne ñett waaw ak maam maam benn lan dañ ko kileen dañ ko defal farce sudus ba pare sudus lu muy lu muy génn maanaam juróom benn ak mbokk mu góor ak mbokk mu góor mbokk mu góor lu mën a doon mbokk mu góor di am na ba gën a war a ànd ak maam yi ñu am na ñu bokk mën nañoo mën nañoo bokk séddale ba pare léegi séddale neex yi juróom su su su juróom la tënk juróom la tënk nga tënk sax ñett juróom la tënk nga seet ñett ak juróom benn nga bàyyi te bàyyi te daal te daal te daal wóor na amee nit yi nag ñu bàyyi kon def tax ñoo gis ak sëriñ ak ñu àqal ko bon même juróom la def juróom la suñu def juróom benn juróom la waaw te waa fokk la wóor na amee nit yi أن تضرب مثل أحدهما في كمال الآخر ليس بما يعنت في يعنت تعطي الكات لكن ليس آخر بخير فهو ها؟ لا ما ما ما ما لكم أي رمز kaal léegi carte la am moo fi nekk nga ne ban ngeen gën fii ci moom dina ci mu gën sud sud donc léegi ñetti kaay benn kaay bu njëkk bi mooy muqasimatul muqasimatul ixwa léegi ban ax moo fi des benn ax moo fi des benn rek bon li desoon ci kaay cinq cinq rek bu séddoo moom deux demi lay am kon quatre yoo ko gën bon benn kaar boobu est-ce que yéen a ngi suivre bu baax loolu léegi si sudus bi doon boobu wërës ñaar mu xasoo def ixwati wala xasoo def ixwati waaw moom fekkee dafa bàyyi maam loolu léegi maam bi mooy taxaw ñu def sudus si si lu muy mën a génne maam six six waaw kon maam bi maam bi yéen katay moom yéen koy def sudus waaw ñu indi soxna bi ak maam la mooy mooy lan tama tama ak kale bi mbokk mu góor mbokk mu góor léegi lu muy am mbokk mu góor ak nga lay am mbokk mu góor asal na toog foofu bon ah léegi ak kan kan fi nekk ñooñu rek la maanaam léegi mooy si si lan bi rek mu xas mu xas mu xas d'accord bien léegi kon affaire bi farati ñu ngi fii ci kan ak kan la ñu yoroon koo ñu ko nekk ci maam maam maam mu wax ñoom ñaar ku nekk ci ci lii dem waaw mu def ñeent léegi maam a ci def ak ax maam bu jëlee sudus kon ñaar lay doon maam bu jëlee sudus ñaar lay am bu fekkee dafa séddoo ax bi ci ñeent du muy am ñaar ñaar beneen ñetteelu kaa bi mooy lan ñetteelu kaa bi c'est-à-dire xam nga ñetti kaa lay jàllale bu ci dem ci moom seet nañu suñu séddoo mu xasama mu def suñu ak suñu jëlee suñu ñëw nga def benn kaa suñu baax léegi suñu baax bi fii benn ak benn wàll lay am kon dafay ñaar ñoo gën mooy mu xasama bi taxaw mu def précaution fii waaw ñaata bi doon ñeent bi doon ah juróomeel la xam kon bu xasoo te moo gën. maam jëm jëlee benn cinq pour cent de mbokk. waaw waaw comme juróomeel la rek noonu la. beneen kàddu ci def bu ko ñetteel mooy bari. mooy solution à bàqee. su ñu jëlee solution à bàqee. muy kan ak kan ak kan. foofu moom yaay la. yaay ak maam. ak ixwaan ak ixwaan. yaay la ñuy am. yaay sudus lay am sudus. yaay ak kan ak kan. yaay la ak maam. ak ay mbokk. mbokk yaay ak maam ak ay mbokk. yaay doon si asam la. ay suuf la suuf la koy am. donc jaay nga ko. loolu mooy am. ah. sudus sudus. suuf sudus. sudus. sudus ci mën a jëlee. après yaay ak kan ak maam maam ci góor maam ci góor tamit maam ci góor waaw ñaari ci ñu ne def semence semence mosul amal ci bi nag tax ñu jublu ak la di bàyyi la ku nekkaat mbokk mbokk yi ñaata la ñu am yu góor yi ñu ci mbokk mbokk yu góor mbokk yu góor ñu ngi war a def ñoom ak ñu seetu bi ndax ak loolu léegi ak ak loolu masala bi la fay suñu sikk si na maanaam ko defee da nga kanam kanam nekk yaay ak maam ak maam ak maam mooy cas bi nga xamee ne solution bàq moo gën bu ñu jëlee ñaari suñu si ñu suñu si mu des ñaata suñu ñeent si des kan ak kan ak ne mbokk yi ñaata lañu fukki jëm kaw ak maam ba passé wu ko taxaw beneen bi ñetteel bi xamante ne fàtte ngeen ko. ngeen ne ñett yi laaj topp ngeen ko jàng ngeen ko bu baax ngeen ne saa bi njëkkoon wax mooy bi bi lan gëne bi sudut gëne kan ak kan la woon waaw misaaloon nañ ko daal bi ci tegu moo doon gis ngeen ne passé na ko yaxoon jeex na mu des suñu subaa baax jeex kañ léegi bi nga xamee ne yaay ji ak baay ji kenn ku ne jël na sudusam sudusu juróom benn di benn ñoom ñaar seen kii di sudus muy ñoom boole yi ciy jël muy ñaar mu def lan ñeent ñeent nag di sudus ma bàqee mooy lan ñeent sudusam sudusu ñeent mooy benn ak un tiers benn ak ay un tiers bu fekkee ne mbokk yi ñaata la waxoon dañoo bari bu fekkee mbokk yi fukk nañu kenn ku ne du am kenn ku ne du am sulus sax la ci ngay léegi kon li gën ci moom ci cas bii moo di sulus maa baax waaw kay loolu laa leen waxoon ñun dañu seeti ko ba mu leer ñu topp ko ci kër ga ba mu mokk ala léegi nag alhamdulilah mën nañu ko mu delluwaat waaw moom ci mooy bi ñu jëm de xëy si ko dul xam xam nga xam ne daf mel ne suur yi dañ cee déglu wala dafa am ñaar ndax misaal yi ñu naan atay si ko dul xam waaye fa alam bi annaha tatluqu sab'an ba'da ishrin qismahu mais fël yu jedd fël fël yu jëw ji tisatun wala lu ñu sittatun samaniyatun bil jedd li waxti arbaaw bokk na ci biir lu bëgg a jaxu fii léegi mu ne waxul ne huwa ahaqqu min bayil arham foofu la ne moom alladi laa samara lahu fi kitaabillahi azza wa jalla ولا يرد من بني الأرحام فوق الرجال فوق الرجال
ولا يرضى للأخوات مع إلا في الغرات وحدها waaw waaw waaw ci paas bi nekk di koy loolu laa yor baa deful cëral li axawaati ay mbokk yu jigéen ma al jetti waxtu woo xamee ne maam teew na mbokk ki mbokk yu jigéen yi duñ leen sompal duñu am maanaam bu ñu desee bu ñu manqué kenn du leen maanaam kenn du leen teddal loo xam ne seen cër la boo xam ne ñoo ko moom mën nañoo ñàkk mën nañoo ñàkk est-ce que comprendre ngeen ko hein comprendre ngeen ko fekkente ne dafa am ku dem alal ak borom seen bari maam bokk ci xam nga xawaat yi bu fi ay bagaas nekkoon sax dañ leen di dàq léegi gannaaw ñoom ay jigéen rek la ñu maam a ngi fi ndax maam bàyyi ko mënoon dàq wala doom kenn ni ko fi def xawaat yi bu ñu seetee borom cër yi ñoom duñ leen sàkkal cër boo xam ne moom la ñuy am dañuy xaaru bu jeexee mu perte bu ñu bari desee bu ñu bari desee itam bu fekkee ne amuñu ku leen góore ba nga xam ne góor ñaar jigéen benn lay doon ñu doon na nga xam ne bu ñu leen dàqul noonu la ñuy doon parce que xam nga ñu ko wax maanaam li mu wax maanaam daal mën nañoo am comme mën nañoo ñàkk mën nañu am comme mën nañu ñàkk bu fi maam nekk maam nekk.
ak yeneen waroon mooy doon yoo xam ne seen cër dafay labal alal ci waaw bu nekkee nag mu des tamit mooy man mooy mën a am kii waaw comme fi ñu war a doon rek fu ñu war a doon ne oxtu axwaat fu ñu war a doon ne bu fekkente ne lil adna wala shaqaiqa ni ñu ko waxee woon fàtte ngeen kaay yi weesu yëpp te shaq ay shaqaiq nekk fi rek suñ fi nekk ñoom kese kay waaw kañ
yamaden yamaden incha lu ñu doon waaw ko ci ay ko waaw moom nga xam ne kon bintaan nekk fi su fekkee ne am na ay bintaan yi waaw allah dañu doon dara lu dul
mu ne illaa fil garraa julli ci makaram ñu tuddee al garraa waxdaha ci makaram moom rek la maam di teewee borom ñu cër teew ay axawaat maanaam mbokk yi jigéen teew ñu cëral leen mu ne sanazkuruhaa daan ko wax léegi baada haza ci gannaaw masala bi ñu ngi def mu ne su ne doon al mawla laala mooy ki goreel ki ñu goreel bu faatoo ndax al mawla laala ak al mawla lastal ki ñu goreel mooy al mawla lastal ki ko goreel mooy al mawla laala ki nga xam ne nag moom la ñu goreel bu faatoo te amul ay asaba yu koy donn ki ko goreeloon moo koy doon léegi mawlaa lasfal mooy ki ñu goreel moom bu fekkee ne mawlaa laala ki ko goreeloon faatu na du ko doon mu ne wér al mawlaa laala di gën farata su fekkee ne wér na comme bàyyi rek génne almaali alal yëpp lay doon dara ci def nga ne ko xanaa day góor boobu mu ne rajulan góor kaanal nekk ay ndaal wala jigéen waaw amul masala bu ngeen xamoon foofu lu muy fàttali al mawla laxlaa waaw waaw waaye itam xam nga rek bu ràññeewul rek mën nay waxtu boo xam ne ci wetu bàyyi la wala muy sàq bokk nay bàyyi wala muy ndey rek ka ci la soxla fii mooy ki nga xam ne ndey rek la bokk ak moom. waaw waaw kooku day li ñuy wax seet la dañu kaa nga jëm ndax dañu kaa nga jëm ñu ci kalaala fii dañu kaa nga jëm ñu ci kalaala fii xam nga kalaala moom waaw ñaari yoon yi waaye bu njëkk bi taxawal bu njëkk bi ñu bu njëkk bi moo ne ci bopp bi bu njëkk bi moo ne ci mujj bi lu ko jiitoo bi kaa ci ko ak ay ah waxu yéen faa dana feeñ ci dana ci ci mu boo dikkee ba nu ko waxee dama in kaana rajulun yumliku kalaalatan aw imraatun wala axun aw wa in kaana rajulun yumliku kalaalatan aw imraatun wala axun aw aw imraatun wa in kaana imraatun yumliku kalaalatan aw imraatun comme su ko bu ci bañ ma si gis ba kooku yëpp kii naa ko wax naa ko ba jàll foofu waaye ndax xam nga ulama yi dañuy nekk ci fuleer bu fekkee dafa ne kalaala rek am na ñi mën nañ koo dégg waaye dara lu leen leeralal ne ci wetu sooy ci rek la bokk ku ñuy waxee xam ne li ñu wax de façon moom mu ngi ci ndax ci kitaabillah moom kitaabillah moom alquran rek xam nga wóor yéen ko ah ñu ko jiite wala commencement de kese waaw wala commencement de kese baax na man de xamee wala mu wax ko feneen léegi daal zawul arxam daal ñi nga xam ne daal dañoo bokk ci faatu ñoo fi nekk bu ci doon ñi nga xam ne dañoo indi alquran daf leen tudd. xam nga ñu ngi wax ko léegi bi rek waaye ci rayu ko def. mënoon nañ xëy na dana ko dana ko leeral dana ko leeral ak ci ci jot bi même ci jot bi am na ay saraxal yu nekk saraxal yi même ci saraxal yi am na ay saraxal léegi nag ñi nga xam ne daal ñoo am kër ndax même noonu xam nga daal bu dul ci suuf bi sa am na foo xam ne daal daw na xaal yi daal am na ci li mu tudd gàllu loolu ñooñu ñoom ñu saxle lañu ñu gën a saxle sax ci wàllu wàllu ñi nekk ci wàllu bàyyi te tolloo ñoom dëgg rek mu ne laaban lahu sax mun lu dul ñi nga xam ne am nañu jël ci kitaabillahi ci alquran te ni mu roon alaka waaw wala mu waxtuñ dëgg moom lañ leeraloon waxtu li na saboo yi na am nañ ummi aw nañ abin parce que ñun ñëpp ku ci nekk waxtu la ñett ñoom ñëpp kenn ku ci nekk waxtu la ki bokk ak néew bi ndey rek ki bokk ak néew bi baay rek ki bokk ak moom ndey baay bu ñu nee waxtu rek jamtal na ñett ñëpp kenn ku ci nekk bi façon moom ñëw na ak maam bi sax dégg nga mu ne wala yéen si doon ni ñu nekk ci ISRA yi moom moo amul solo dara dara dara daal dina ko xamal xool ci bi kon ñi nga xam ne mbokk lañu ci néew bi ci wetu ndey te duñu bokk moom benn ndey dañu dàq ñoo amul jër wàllu bee daf ci àddu waaw ñi nga xam ne am nañu cër ak ñi nga xam ne amuñu cër ñi am cër mooy ñu bokk ak moom benn ndey daañu jot ñu bokk ak moom benn ndey lu ñuy am ñooñu am na particularité ci nekk ah am na lu mu wuteeg yeneen yi laaj wax moo di góor ak jigéen ñettalaat góor ak jigéen ñoo ci yem lekk ki ñuy doon ndey lañ bokk ak moom kooku am na cër maanaam doomu ndey yooyu am nañu cër ci biir yàlla ci alquran ci dégg ko waaye góor gi ak ku jigéen bi ñu def ñu dakk li ñu xam ne góor ñaar jigéen dem ci am comme ndey la ñu bokk ak ci faatu ñoo ci yem dafa góor ak ku jigéen ñoo ci yem loolu mooy particularité bi dégg nga kon li tax moo gàttal ko leer na moo di ne ñu féete ci wàllu ndey ñëpp kenn la ci doon mooy bokk ak moom benn ndey léegi xam nga ko muy walaay rek ci benn nisaaw jigéen minal walaay ci kilifteef illaa maa dul la nga xam ne ñi nga xam ne ah tax na goreel nañ leen ñoom ci seen bopp aw jarrahu wala du ci ko goreel léegi jigéen ji bàyyam wala ku bokkal ndey ak bàyyi dafa goreel kenn kooku faatu moom jigéen ji du ko doon fii du moo ko goreel dégg ngeen li ñu wax aw jarrahu wala ji ko maanaam xëcc ko jëme ci ñoom man ka nga xam ne ah taq na goreel nañ ko ñoom jigéen ñooñu ne mu kooku xëcc ko xëcc dono ba di léegi nga jëme ci ñoom bi ma daa def ci jur aw yëpp ñoo ko comprendre nga léegi daf la wax ne jigéen bu ñu doon dal doon na kilifteef maanaam ku amoon sa jaam ci jaam ci am goreel ko jigéen yi ki mu goreel nga xam ne moom ci bopp moo ko goreel lay doon wala ki nga xam ne dafa goreel ki mu goreel moo indi dono bi ci moom ni ki tey am na jaamam goreel na ko jaam bi am na doom doom bi tam jaam la mu faatu wala mu doon ne ko ci maanaam rek ci ki mu goreel daal tërëju bi moo ko tax a doon maanaam moom la yoroo ba doon ko waaye doon bi du ko gënal moom du doon.
ah doon bi du ko gënal moom du doon.
te muy jigéen du doon waaw mooy ki nga xam ne moo goreel mooy doon wala ka nga xam ne ki mu goreel moo ko xëcc jëme ci moom maanaam moo moom kilifteefam wala moo ko war a doon wala sa nekk wala yu mel noonu kon dégg ngeen rek mu ne mooy ilayhim bi wilaadati ki mu goreel la ko jur aw ëkkin wala ki mu goreel moo goreel kooka waaye ni tamit su fekkee ndaje na man koo xam ne la ko ñëw ko sax mun te benn cër mu am bu ñu xam ci kitaabilaay ci téere yàlla bi wa kaana te nekk zalika loola le ak sara di gën a bëri mi leen maali ci alal ji maanaam dono ba pour de xila tàbbaleef alal ci ñoom ku li ñoom ñëpp ak dararu maanaam lor ci tàbbi ci ñoom maanaam compat bi comp bi ñuy compé kenn ku ne la nga waroon am wàññi ko léegi boroomi cër yi ñoo fi daje ñi nga xam ne am nañ cër bu dëgër alxuraan la ko indi kenn mënu leen a dàq ñu seet nag seen cër yooyu mu ëpp alal ji ki war a doon nisif ne fi ki war a doon sulus ne fi keneen ku war a doon sulus ne fi keneen koo xam ne kii dafa war a asaba lay doon wala dafa war a doon robo wala sum ne fi léegi cër yi dootu mat ñu somp tomb yi toll ne dañ seet ci masala cosaanal masala bi ki war a doon nisif ñu ne nisif ñaata nisif sulus te ñaata lay doon ñu ne ñett ñu fii ñett am keneen koo xam ne ci dafa war a doon sulus sulus ci war war a génn ci ci ci juróom benn ñaar mooy sulus bi ñu yokk ci ñaar am keneen koo xam ne moom it dafa war a doon robo waaw mooy lor